bismillah alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala ibadihi allazina stafa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki asamadiye ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fas yéene dikkaat ak yéen rek ci bind bi ñu leen baaxoo andil ci téere bi tudd irwa un nadim min azbi xubbil xadim te cheikh mahamadul amin Jóob dagana bind ko ci jaar jaari cheikhuna ahmadul xadim mu mel na kon tey moo war a nekk bindu fukk ak juróom-ñaareel incha allah ci page 139 ci mool boobu nga xam ne moom lañ moole woon Maroc mu ne wa zakara tudd na moom sëriñ bi ne annahum naka ñoom jaalu defoon nañ ko fii tariqin ci aw yoon dayiqin wu daa ji xat wa atlaqoo te ñu boyal alayhi ci kawam baqaratan aw nag aadiyatan wuy aji met qaala wax na fi ibadatihi ca waxinam wa waxum te ñoom waaqifuuna waaye taxaw lañ yanzuruuna di xool ilee jëm ci man fa zannoo te ñu jort ne annaha naka moom nag bi tan kab bu dana këpp alee ci sama kaw fala ma danat ba nga xamee ne jege na min ci man taarat mu dal di naaw ka anna laha mel ne ñeel na ko aj ne xatan ay laaf eh, Cheikh Mamadou Amine nee na sëriñ bi ci boppam mooy nett li nee na bi nekkee ci eh, géej gi am na benn bis ci benn dun ci dun yi nee na ñu dëkkal ko maanaam ñu def ko ci mel na mbedd mu xat daldi daal di xiirtal aw nag woo xam koo yafal ba noppi soxoral ko ba mu soxor maa xam ne gis nit rek lay bañ daanaka nee na ñu daal di koy xiirtal ci kawam ñu ngi ko sóob ci mbedd mi ci ci ci wet gii daal di sóob nag wi ci wet gële ñu war a tase ñoom ñu ngi taxaw ci seen kaw couloir dégg nga ak seen kaw balcon dégg nga di séentu ak di xool jàpp na ne nag yi moom faw dana dal sama kaw naka la ñëw ba jege ma rek na dal di ne dégg nga daal di di daal tëb mel na lu amee laaf dégg nga di naaw ci jaww ji wa haadihi albaqaratu wi la nag hiya moom allati mooy wi nga xam ne yazkuruha dana ko tudd naazimu baadil xawaariqi ajiwaay lenn ci xarbaax baax ya abdullahi salim tamaayo abdullahi salim ibnu hanbal alxasani ki ko jóg xasan xawlihi ca waxam jane nee na am na ko ñu wax abdullahi salim bin doon way xarbaaxi bi ci géej gi mën naa am nag wi la jublu ci bi muy wax naan békkurun ab xiik minal baqari ca nag ya al ahli yee kër taairatan naaw fil jaww ci jaww ci xataa tawaarat ba suturlu fawqa atyaarihi ci kaw ay wàllam mhm. aw nag koo xam ne nagu kër la yafal ko dégg nga soxaral ko dal di koy boyal ci kawam nee na fa ñëwee ba jege ko daal di naaw ci kaw jaww ji ba mel ne lu amee laaf wa zakara mu tudd ne annahu naka moom taala yàgg naa mukk suufu ak saxam fi ba mawaadii ci lenn ci barab yi xataa sa imat ba yuqat nafsuhu bakkanam al mawadia ca barab ba wa shakaata mu jàmbat fa bi mujarradi shikaayatihi ci lu ñu rafleeli ak am njàmbatam rek sallata xiirtal na allahu yàlla alayhi ci moom nam lan ay xorondoom kibaaraan yu di way rëy kasiran yu di bari bari tuusihi danañu danañu ko lor isaayatan ak lor fala maa alimtu ma nga xamee ne xam naa ne anni naka man duhiitu jombalees na ma min jihati nafsi ci sama wàllu bakkan ndax suñu borom nee na wa ma asaabakum min musibatin bi ma kasabat aydikum ma saxtu ma daal di folli shikaayati sama njàmbat bi sukkur ci sant yàlla ñu bàyyi ma ci barab boo xam ne dama faa yàgg lool ba mujj sama sama bakkan daal di yokkaat ci barab bi nee na sama xel ma daal di jàmbat noonu rek ci sama ci sama xel jàmbat gi ma jàmbat sama xel barab bi ngir yàgg ma fa yàgg rek suñu borom nattu ma daal di may xëpp ay melentaan yu rëy yu bari nee na ñu di ma lor ma xam ne rek sama bakkan moo ma ko yóbbee ndax suñu borom nee na lépp lu leen jot ci musiba rek na ngeen xam ne yéen a ko fàggu ci seen loxoy bopp ma d di folli sama njàmbat loolu ci sant ko fakultu ma daal wax nasaxtu folli naa shikaayati sama jàmbat bi sukkuri ci sant yàlla fala asko dootuma jàmbat duroon lor la xooñal fa dur yi sama lor afala suux na ne sama jàmbat li ma doon jàmbat dey folli naa ko ci sant yàlla dootuma jàmbat sama borom maanaam jenn lor sama lor suux na fa zahaba daal dem an nii walis ma an nam lu xorondoom ya fa baqitu ma daal des mustarixan mbir mu may aju noppalu nee na naka laa bind bay doowu rek xorandoom yëpp daal di may wàcc daal di dem nee na ma daal di noppalu mu ne wala àlla naazimal xawaariqi xëy na lee aji way xarbaax ya haza li maqsuduhu mooy ak jubloom fii xawlihi ca waxam ja waxoon ne nee na mën naa am ki way xarbaax yi te mooy abdullahi saali moom loolu la ci bimu ne namlun ay xorandoom ka misli ruxaali yu mel ne ay cumbur al juuf yu daway rëy fi fii isamin ci ak màgg yulqa def na sànni la hoo jëme ci moom almar u camsi lam moom yitte woowul bi idraar yi ci ak ci ak loram dégg nga ay xorandoom yu rëy rëy rëy nee na ñu dégg nga ñu sànne ko jëmm ju baax jooju le ñu di ko lor ak di ko mat waaye yitte woowut lor din koy lor ak mat din koy mat dafa daal di yitte woo boroomam rek wa zakara mu tudd ne anna zalika al mutanassira naka joojale aji nasraanu almazkura kadi kon tuddoon asa a ñaawal na ilayhi jëm ci ma marratan aw yoon falaamahu daal di koy yedd baadu ashaabihi leen ci ay àndaaleem wa xawwafahu tamu ragal loo ko xataa xaafa ba mu ragal wan na dema tamu rëccu wa ataani tamu dikkal ma tilkal laylata ci googale guddi maa man ànd ak koo xam ne yaquudu dana wommat la xoo ñeel ko shaatan ab gàtt wa bi yadihi na ci loxoom huwa moom xuqatun ab pot kabiratun buy aj rëy minal xibri ci daa wan bataxa mu daal di tëdd bay na yadayee ci sama kanam wa zaama tamu wax ne annahu naka moom taibun aju tuub la wa annahu ak naka moom laa yabraxu du deñ xata adaa ba ma teg qadami sama ndëggu ala raqabatihi ci kaw aw loosam wa saraftuhu ma daal di koy walbati bi qawlin ci wax xasanan ju daa ji rafet euh, sëñ bi nee na euh, aji nasaraanu jooju nga xam ne moom la tuddoon ci ginnaaw duudu mbay la jubla wax rek nee na dafa am bis mu def ko jëf ju ñaaw wala mu wax ko wax ju ñaaw bi ko defee nee na ay àndaaleem ak i moroomam daal di koy yedd ne ko ah moytul jëmm ji kii du ku ñuy tooñ de lu ko waay ma sa def gis na ko dégg nga nangam ak nangam dal ci kawam yedd ko dégg nga nee na mu daal di tiit tax mu daal di rëccu bàyyi ba guddi nee na mu daal di wut ab gàtt booleeg ab pot boo xam ne daa la ci def ba mu fees mu wut ku ko womatal gàtt bi daal di yor potub daa bi ñëw ba fi man dégg nga daal tëdd sama kanam ne day tuub dégg nga ne ne daal day tuub daa bëgg ma jéggal ko daal defee nu wane ne li feeg jëluma sama sama ndëggu lii teg ko ci kaw aw loosam du jóge mukk fi mu tëdd nee na ma fexe ba wax moom wax ju rafet rek nee na mu daal di jóg dem. wa wajadani fekkoon na ma ak aktubu may bind fa qultu ma daal di wax fil xaali ci saase ne fekkoon na ma may bind ak xasida ma daal di bind ca saase daal ne xalabta wëlbatil nga lii ñeel ma allaylata guddik tay xalba zirtidaadin xolub boroomu tubbi min baadi ma jaa ci ginnaaw ba mu dikkee bi shaatin ànd akub gàtt wa midaadin ak daa wëlbatil nga ma xolub waa ji nga xam ne ku wedd yàlla la dégg nga ba tax mu ñëw indi daa akub gàtt ne day tuub waa zakara mu tudd min karaamaatihi mbokk ci ay karaamaam fil baxre ci géej gi annahu naka moom kaana nekkoon na fi baadi axyaanihi ci lenn ci ay waxtoom saakinan di aji dëkk maa xaakimin ànd ak ab gouverneur shadidin bu di aji tar laa yu xaara bu koog déeful jegenteeg moom wala yan qaadu tadu wammatu mukk li xayrin jëm ci aw yiw fa qultu ma daal di wax yow man ci benn bis ne inni naka man axtabiru dama nattu jihaad yi sama jihaad fii amri haada al ci mbirum ci mbirum bi la wa anzuru tamay seet kay fa yu saxiruhu naka la koy tàggate allahu yàlla liy ñeel na sëñ bi mooy wax mu ne bokk na ci karaama yu ko suñu borom terale ci géej gi dafa am ay jamono yoo xam ne dafa dëkk ak benn gouverneur boo xam ne ku jàgg la ku naqari deret la koo xam ne kenn mënut a jaxasoo moom te du wommatu mukk jëm ci aw yiw benn bis ma ne waa jii daal danaa natt sama jihaat jii may jihaat ba xam sama borom nangu na ko ak ndax dëggu na wala déet dégg nga ak naka la ma ko sama borom di tàggatale. fa xuntu ma daal di jóg min bayti bàyyi ko ci sama nekk uridu ngir moom danaa namm baytaxoo ab néegam fa xiila daal di fa xiila waxees la xoo ñeel ko ne ko inna cheikha naka sëriñ bi day muqbilun aji dëgmal si la ilayka jëm ci yow fa xaala mu ne mustaxilun aji jomb la li ngir naka moom yut la bu daayees na ko sàkku fayam taniw tamuy tamuy terewu tamuy bañ kay fi yaa ci naka lay dikkee bi nafsihi ak bokk ab goppam tawan ci coobare nee na benn bis ma daal di ba bërëb rek jóg daal di jëm fa mu dëkk ca néegam naka la ko ay ànd naka la ma seen daal dem ca moom ne ko maaraabu ba de mi ngi ñëw maanaam sëñ boobu day mi ngi maanaam mi ngi ñëw te ci yow la jëm si mu ne loolu mënut a nekk kooku nga ne dañ daan sàkku mu teew ñu yónnee di ko woolu dégg nga du ñëw muy jógal boppam di ñëw ci coobareem loolu daal mënut a nekk faqila waxees la xooñal ko ne ko laa jarama amul sikk ne ànd hoo naka moom hoo moom al aati mooy aji dikk ja ñu ne ko ah mooma de kii ñu seen muy ñëw de mooma moom faqaama mu daal di jóg min wa talaqaani tamu gàttandoo ma min baidin ci fu sori wa farixata mu bég bii ci man xaayatan daytalu bég nee na naka ne ma fu di bég ci man lool fan talaqa mu daal di boy ba ci si bay aji jagoo fa qaala mu wax lii ñeel ma ne ma naam maa tuxibu ana loo sopp bi tawaalin ci ak toftaloo wa takkaraalin akub baamu nee na bi ma ba ci néegu biiram nee na daal dina ma damaa bëgg daal nga wax ma loo bëgg ma ma defal la ko nee di ko baamoo di ko baamoo ko baamuwaat wa ana taman saakitun aji noppi laa anzuru di di seet fii maa ci li nga xam ne aqulu danaa ko wax la xooñeel ko nee na man ma ne tekk rek di xalaat xam lan laa ko war a wax xataa qultu ba ma wax la xooñeel ko ne ko uridu danaa nam mu shay an dara minal mi daal di ci daa nee na ba yàgg ma ne ko xanaa xanaa dara ci daa rek xanaa dara ci daa rek fa aataani mu daal di may jox xoqatan a pot kabiratan buy aj rëy mamluatan bu ribun feesal fa wallaytu ma daal di dëddu anhu walis ko nee na mu daal di may jox pot boo xam ne mi ngi fees dell ak daa nee na ma di ma daal di dem mu ne wakkuntu nekkoon na fi qasidatin ci ak qasida murattabatin guddi gun toftalee ala xurufi abata saja ci xarafi abata saja kullu xarfin yëpp xaraf naxwa sabaati ayaamin yu tolloog juróom-ñaari bayit wa balaaxtu ma daal di jot xarfal faa i xaraf faaga fa katubtu ma daal di bind minhu ci moom nee naa fekkoon na ma may bind euh, xasida goo xam ne ma koo tënkee xarafi abata saja wenn xaraf wu ci wu ci nekk danaa ci bind juróom-ñaari bayit soog a jàlle soo ci des ma egsee ci xarafu faa nag bokk na ci bayit yi ma ci bind ma wax ne faasa texe na xilaam yi samay xalima inda axlafa fa ab aat jaxada ko na yàlla waruttuhu ma tàggat ko bi qul huwallahu ahadun ci qul huwallahu ahad am nañ ak texe am nañ ay ngañaay ci aat boobu nga xam ne duggul sax néegub góor di ko wedd yàlla ma tàggat ko ci qul huwallahu ahad su ma katab topp ma daal di bind ab yaatan ay bayit baadahoo ci ginnaawam xiila waxees lii ñeel ma ne ma inna haza naka lii kat xiyaanatun wurut la tatrukuhum da nga leen bàyyi mutlaqan dégg nga ak seen lépp su ma taaxus topp ngay jël minhum ci ñoom xufyatan ci làqu fan taxeetu ma daal di bàyyi nee na ma ma daal di bindaat yeneen bayit ci ginnaaw bayit boobu nee na ñu ne ma ah lii ngay def lii ngay def kat day day day bëgg a nuru nag wuruc ndax nee nga bàyyi nga leen ba doo jëfandikoo seen dara ba noppi di jël ci ñoom dara ci nëbbu di ko jëfandikoo nee na naka lañ ma wax loolu rek ma daal di bàyyi maanaam daal di ko fa yemale su ma xafar toog ma daal di gas xafaran am pax amiqan muy aju xóot wa sababtu ma daal di sotti fii ci moom almidaada daaja nee na ma daal di gas ak am pax ba mu xóot ma sotti ca daaja daal di suul fa alimtu ma daal di xam nag sidqa jihaad yi dëggoog sama jihaad fa alhamdulillah na ma daal xam nag ne sama jihaad dëggu na te sama borom nangul na ma ko ma sant yàlla wa zakara tudd na ne an na fataatan naka ab xale bu jigéen min banaati ndar bokk ci doomi ndar raat gis na ahla badrin ahlu badr manaa man ci ay nelaw wa fi tilkal ayaami ci yooyu la bis daxaloo tàbbi nañ alqareer ca dëkk ba wa tafiqoo tañu tàmbal na di ren di ahlaha ñooñ dëkk ba xata isa danaa ba nga xamee ne jege na waaxidun kenn minhum ci ñoom xaala wax la xooñeel ko al axaru ka ca des ne ko tilka kooku day muslimatun ab julit la fan sarafa mu dal di wëlbati ko an xawalis ko sëñ bi nee na mi ngi tudd nettali eh, seen soxna soo xam ne eh, ci mm, doomi ndar la ndar la dëkk mi ngi woon foofu ci gabon nee na dafa am bis mu tëdd guddi gént ahlu badrin dugg ci dëkk bi mu nekk tàmbali nee na di rendi di rendi waa dëkk bi di rendi nit ñi fa ne bi nga xamee ne am na ñoom ku ma jege ka ca des ne ko kooku de ab julit la nee na mu daal di wëlbatiku daal di may bàyyi. xaala wax naa cheikh sëriñ bi radiallahu anhu nee na tilkal bintu boobale xale bu jigéen de saalixatun aji yiw la aji baax la wa kaana nekkoon na tuxsinu di rafetal ilay jëm ci man bi ma ci lépp loo xam ne tayassara jàppandi na la xaañeel ko nee na sëriñ bi nee na soxna soosu de ku baax la ku ku daan defal lu rafet la lépp lu man ci lu rafet dégg nga a daf ma ko daan defal biñ bokkee nekk foofu ci Gabon wa taqulu tamuy wax lii ñeel ma naan ma kullama lépp loo xam ne aataytu ko jox naa la ko foofu moom min amali yad yi mi ngi tukkee ci liggéeyub sama loxo lay sa mu nekk ci moom samanu xamrin njëgu sàngara wala samanu tabrin du caage ne njëgu póon mu ne nee na daf ma daan wax naan ma lépp loo xam ne jox naa la ko na xam ne maa ko ñaq maa ko liggéey ak sama loxo njëgu sàngara nekku ci njëgu póon newu ci njëgu póon amu ci tabaxu nag lay firi naan wa yu'rafu def na ko xamee bi nat ni ci ak xet wa duxaane ak saxaar tabaxu boobu lay wax moom lay firi naan ci xet lañ koy xamee ak saxaar mooy maanaam poon rek wa innama taqulu nag dana wax zalika loolu li anna al muamalata ngir naka jëflante ba hunaaka foofee bi himaa nekk na ci ñoom ñaar nee na sëñ bi nee na li tax mu dima wax loolu ak dima ko leeral mooy barab booba daanaka jëflante ba la ci ëpp ci ñaar yooyu la muy sàngara ak pon wataalamu da nga xam bi annii ci naka man wataalamu te dana xam moom soxna si bi annii ci naka man laa astaamiluhuma du ma leen jëfandikoo ñoom ñaar wala bi samanihima du caagi ne ci seen njëkk te moom soxna si xam na ne man du ma jëfandikoo ñaar yooyu muy sàngara ak pon du ma jëfandikoo it seen njëkk loolo waral mu di ma leeral loolu fa xultu wax naa la xaañeel ko yow man bis ne ko ma maa turidina ana loo nam bi haazal ihsaani ci gile njëkk fa qaalat mu amma fi dunyaa daal ci adduna day fa uhibbu dama bëgg zurriyatan doom wa amma fil axirati daal ci alaxira fal jannatu ajjana laa bëgg benn bis laaj naa ko ne ko lu njëkk lii nga may defal dégg nga ak lu rafet lii nga may defal waxtu wu nekk ana loo ci bëgg dama bëgg nga wax ma loo bëgg ma defal la ko nee bu dee ci adduna day doom rek laa fi bëgg bu dee ëllëg yowmal xiyaam nag ajjana rek ma wax la xaañoo ne ko wallaahu yàlla day qadirun aji attan la aji man la ala kulli shay'in ci mépp mbir nee na ma ne ko wallaahu ala kulli shay'in qadir falam yalba saxul bi iznillahi ci ndigalul yàlla an boo xamee ne xamalat ëmb na wa maa kaanat te nekkutoon taxmilu di ëmb diir bu gàtt lañ ci teg rek dégg yàlla daal dogal soxna sa daal di jël jël maanaam daal tollu fenn hmm, daal tollu fen te daawu ko def maanaam musta musta musta fen fenn waxi na tammat waxtu nga xam ne mat na muddatu xamlihaa diirub ëmbam ba wadaat mu daal di sippi mu daal di am doom wa maatat te mu faatu bil wadaan ci sippi ga nee na bi nga xamee ëmb bi mat na nee na mu daal di mu daal di am doom waaye ca ba muy am doom rek ca la faatu ca la faatoo wa sallaytu ma daal jullee alayha ci moom mu ne maa ko jullee itam wa maa waqaa mustadal basari sama gis alayha ci moom xattu mukk illaa xiina waqaftu ndare waxtu yi nga xamee ne taxaw naa usalli nekkoon na to amilu nii di jëflanteek man bil muraasalati ci ay yónnante ci ay bataaxal sëñ bi nee na jullee keroog ma taxawee di ko jullee la sama bët ma sa tege ci moom dégg nga ndax mboolem lu mu daan lu mu daan jëflante man daf ko daan yónnee maanaam daf ko daan yónnee rek ay ndaw ak ay bataaxal rek dégg nga la daan jëflante man waaye keroog ma taxawee di ko jullee la sama bët ma sa tegee ci moom. waxiila waxees na ne innaha naka moom bintu daba say doomi daba say la wasmuha turam nag aminatu mooy aminatu nee na wax nañu ne soxna soosu kat waajuram jigéen mi ngi tudd daba say moom mi ngi tudd aminatu soxna ami say waajuram mu jigéen di soxna daba sëy wakaanat nekkoon na taxta rajulin ci ron eh, góor yuqaalu joj def na wax la xooñeel ko yelli sëy yelli sëy waxoo te moom min arkaanil xaakimi ñu bokk ci maanaam kenoy maanaam eh, gouverneur bi ñu bokk ci ay xejjam waxoo te moom aydan ba tey minal bokk na ci way sopp ña al muhsinina ña di way rafetal liy jëme ci sama wàll la xooñeel na ko itam ma al xaakimi ànd gouverneur ba yow mun bis ay wa mun wuy aji tar bi sama sabab nee na soxna soosu góor gu ñuy wax yelli say nee na moo ko yoroon moo doonoon borom këram yelli say moom nag ci ñi daan liggéey ci gouverneur bi yi nga xam ne ñoo ko gënoon a jege bokk ci dégg nga ci noon ci notable yi maanaam ci maanaam ci la bokkoon ñi nga xam ne ñoo gënoon a jege gouverneur bi moom yëlli say moom nag bokkoon na ci ñi ma soppoon lool daan ma defaral daan ma defal njekk ni ke kem ni ko soxnaam doon defee am na bis sax moo gouverneur bi ñu am bis bu tar te loolu lépp maa ko sabab ci sama sabab la wa zalika te loolu moo di an ni naka man zaata yawmin jëm ni ab bis na sabtu samp naa arbaata aydaanin ñeenti bant fii musallaaya ci sama jullikaay bi baa bi bayti ci sama buntu nekk li a ngir may wëlbati biha ci ñoom almarina way romb ña an mawdii salaati walis barabub sama sama julli fa basura daal di gis biha ci moom alxaakimu gouverneur ba wa qaama mu daal di jóg min fawrihi ci ak gaawam wa ataani te mu dikkal ma wa naqada mu daal di firi almasjida jàkka ja wa xalaata mu buddi alidaana bant ya wa ramaata mu sànni bihaa ci ñoom wa qaala mu ne ma laa salaata déet julli huna muy am fii wala al islaama du caagane lislaam turiidu dangaa nam ba nga yàq alenaa ci nun al junda soldar sa fa sakattu ma daal noppi wa xalumtu tama lewet alayhi ci moom eh, sëñ bi nee na loolu mooy dafa am bis ma wut ñeenti bant samp ko ci sama bunti nekk ngir bëgg bu may julli dégg nga nit ñi di bañ a jaar ci sama kanam dégg nga ma ma ma def ko daal mooy saatir soo xam ne nit ñi duñ jaar ci kanam bi ko gouverneur boobu gisee daal di jóg ci saase ñëw daal di buddi bant yi sànni tasaare ko ne ma julli amu fii lislaam amu fii da ngaa yàq soldat si nee na ma daal di noppi tontuma ko falamma alima ba nga xamee ne xam na bi ci moom yelli sëy nga xamee ne yelli sëy yëg na ko xaama mu daal di jóg min fawrihi ci ak gaawam wal xaakim te gouverneur ba la maayazul dañagul maanaam demagul wa mu daal di egsi ilee naa ci nun muxdaban mbir mu ngi ku ñu merloo wa qaala mu wax lil xaakimi ñeel gouverneur bi li ma ana lu tax naqata nga firi masjidahoo jàkkaam ja woote moom bi baabi bayti yi nekk na ci buntu néegam lam yu day qatalut ala tariqin ci aw yoon wala ala ahadin du caagane ci kenn fa qaala mu wax al alxaakimu gouverneur bi ka kazalika niki noonu afaalu laay def la masjida déet jàkka xunaa muy am fii nee na bi nga xamee ne yëlli sa yëg na ko daa daal di jóg ci saase daal di ñëw fekk waa ji jógee gut fi mu ne mu egg si ko meram daal di ñëw ne ko yow anal tax ngay buddi di tasaare jàkka yi jàmbur te moom ci bunt néegam la ko def xatalut yoonu kenn xatalut kenn itam nee na waa ji ne ma gouverneur bi ne ma maa ko def dégg nga loolu maa ko def fii jàkka amu fi faqaa daal di wax la xooñeel ko yelli yelli see ne ko laa budda mënta ñàkk an aruddaxoo ma delloo ko ala xaalihi ca nam meloon faqaa daal di wax alxaakimu gouverneur ko delloo fa xaala daal di dox annaasu nit nit ñi bay na xumaa ci seen diggante aneta daara baa ci ñu bañ a dóorante nee na yelli sëy ne ko mënta ñàkk ma delloowaat bant yi dama koy delloowaat sampaat ko na meloon nee na mu ne ma doo ko delloowaat dégg nga ñu nekk ci loolu di xuloo nit ñi dox seen diggante ndax buñ ko defutoon rek ñu fa baqiyaa ñu daal di des min al asri li tukkee tàkkusaan ilal xuroo bi ba ci sowuk jant yata xaasamaani di xulonte kullu zalik ci loolu wa ana man aktubu maa ngi bind nee na dégg nga nga xam ne bu nit ñi doxutoon seen diggante rek ñu xeex loolu lépp nag fekk na maa ngi bind ak xasida wa fi hadihi alqissati ci bila qissa katabtu laa bind qasidata rabbana axrijna min hadihi alqaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran nee na ci xissa bi nag ci laa bindee xasida googu nga xam ne moom laa tënke aaya jooju moo tàmbalee ci raditu an il mawla taala allazi rabba fuaadi wa agnaani wa akrim bihi rabba ci bayit woowu la tàmbalee ilaa an balaxa ba mu jot xawlahoo waxam ja ne uktub bindal la xoo ñeel yonante bi sallallahu alayhi wa sallam salaatan doole teral maa salaamin ànd ak doole wóolu bi alihi ànd ak ñoñam wa ashaabihi ak i sahabaam wacaalta yàlla nga def bi ci darajaam masjid yi sama jàkk ji raxban muy aji yaatu nee na bi nga xamee ne eh, maa ngi bind xasida googu ba àgg ci wax sama borom ne ko maa ngi la ñaan nga julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dolli ko teraanga ak jàmm moom mbokkam yi ko gëmoon ak saxaaba yi ta nga def sama jàkk ji mu nekk jàkk ju yaatu xiila waxees la xoo ñal ko ne ko ba wuyoos na la ka ñal la saw fa taraaxu xalsat nga koo gis nee na bi mu waxee rek ñu ne ko wuy nañ sag ñaan te danga ko gis wa qad ra'aynaahu gis nañ ko nag wa huwa te moom masjidu jurbel mooy jàkkay jurbel wa tuuba ak tuuba cheikh mamadul amin nee na loolu nag teg nañ ci sunu bët ndax jàkka jooju muy ñaan mooy jàkkay jurbel ak jàkkay tuuba jumaay jurbel ak jumaay tuuba waxee moom xasida gi nag tawilatun aji gudd la xasinatun te aj rafet la laxaa ñeel na ko tasirun jeexit kabirun buy aj rëy fi dafci ci jañ wal jal bi ak ñoddi bi fadlillaahi ci ngëneelul yàlla taala kawe na wa zid wa naazimi ak dëggaluk aji way ji nee na xasida gi xasida gu gudd la xasida gu rafet la goo xam ne gu am jeexit la lool ci dafu ak jalbu lépp loo xam ne lu waay bëgg la di ko xëcc ak lu waay ragal di ko di ko di ko dàq ci ngëneelul yàlla xasida gi lu ci am tasir lu ci am jeexit ju rëy la dégg nga ak ki ki nga xam ne moo ko way dëggal gim dëggal dégg nga ci ab xolam ci jamono yi muy way xasida gi fal yattaqi na ragal allahu yàlla mustaamiluha aji jëfandikoo ko wala yarxab tana xemmeem fii xayriha ci aw yiwam képp kuy jëfandikoo xasida gi nag na na na maanaam na ci ragal yàlla te xemmeem ci aw yiw te bañ cee xemmeem lenn loo xam ne loraange la kon xam naa mbokk yi allah Euh, waaw kay xam naa dañ ko bëggoon yemale foofu waaye ñu àggale xista bi rek mu daanu mu ne wakaana nekkoon na min qadaa illaahi bokk ci attab yàlla an boo xamee ne wafada dikk na alayhi ci moom zairan mbir muy aji ziyaare yelli say yelli say min tilka naaxiyati bàyyi koo ci góogale wàll fi njaareem ci njaareem baada btinaa il masjidi ci ginnaaw tabaxuk jumaa ji ci ginnaaw tabaxuk jàkka ji fa qaala daal wax lii ñeel ma acheikhu sëriñ bi ana wa saaxibun akub maaxoo ànd ak moom yazuuru mbir moom dana ziyaara almasjida jàkka ja bokk na ci euh, dogalub yàlla Cheikh Mahamadul Amin nee na bokk na ci attab yàlla akub dogalam ginnaaw bu loolu lépp wéyee ba sëñ bi ñibbi si ba nekk njaareem ba bañ tabax jumaay njaareem ji ba noppi yelli sëy dafa daal di dafay ñëw dafay ñëw bàyyi ko Gabon ga nga xam ne fa la nekkoon xëy na itam ginnaaw doomi ndar la jógee ci waa ci ndar ñëw doon siyaasi euh, sëriñ bi ci njaareem sëñ bi daal may wax man ak ak keneen ci sama samay samay àndandoo ne ma dem leen ngeen yóbbu ko dégg nga mu ziyaare jàkka ji fa zahab naa ñu daal dem wa taafa mu daal di war bi ci moom yaminan ci ndeyjoor wa shimalan ak ci càmmoñ sharqan ci penk wa garban ak ci soowu zahran ci bitti wa batnan ak ci biir wa zahaba mu daal dem bi ci moom alaajabu yéemu ga kulla mazhabin bépp dem waay fala maa rajaanaa ba nga xamee ne dellu si nan xaala daal di wax la xooñeel ko ak cheikhu sëriñ bi kayfa haza naka la ji wama ak ga nga xam ne kunta nekkoon nga ay di ko gis ayuhal muqaatilu yow aji xeex ja an nii walis ma qaala mu daal di wax ne subhaanallah tudd naa sellug yàlla laa munaa sabata bay askanonte baynahuma muy nekk seen diggante xaala daal di wax acheikhu sëriñ bi ne ko haza lii day huwa moom maanaa qawli mooy maanaam sama wax ji ma waxoon ne nafa dàq na allahu yàlla eh, li xëyri jëm ci kudul man fii maa yomba ci maa yomba maa la nga xam ne saa na xal biya sama xol wa alaata kaweel na aljan ba wàll ga nee na e, Cheikh Mamadou mooy nett li mu ne ma ànd ak yelli sëy ak e, keneen kooku nga xam moom la ma sëñ bi booleel biñ demee nee na ñu daal di wër jumaa ji mu wër ko ci ndeyjoor ak ci càmmooñ ci penku bi ak ci soowu bi ci biir bi ak ci bitti bi mu yéemu ci lool ci rëyaayu jumaa ji ak taar bi biñ dellu see sëñ bi na ko noo gisee sama jumaa sama jàkka ak sama jàkka woon ca Gabon yow mi nga xam ne yaa ma doon xeexal nee na ma ne ko subhanallah xeeto sax defuñu ko nee na mu ne ma li lii day maanaam jumaa ji mooy maanaam sama wax ji ma waxoon ne nafa li xayrillahu fi ma yomba maa saa qalbi wa alal janba ba ma nekkee maa yomba sama borom ca ca la ma dàqale la la woon sama xol te daal di kaweel sama wàll mu ne masa aqal bi huwa moom naqdu zalika al masjidi mooy firig jooju la jàkka wa aalal janba huwa moom irtifaau manarati haasihi mooy yëkkatiku sóoróori bi maanaam bi tabax nee na bi mu ne masa aqal bi la naqari woon sama xol sama boroom dàqal na ma la naqari woon sama xol mooy tasaare googu waa ji tasaare sama jàkka ji bi sempi bant yi sànni kaweel na sama wàll mu ne ko dama cee jublu yëkkati ko sooroor yi yëkkati ko sooroor yi maanaam xikaayatun lii ab nettal la tarifatun bu di aji yéemu fii dimniha nekk na ci biiram it karaamatun karaama nee na maa ngi lay ba bëgg a nettali fii nettali bu yéemu boo xam ne dafa làmboo itam karaama qaala wax na acheikhu sëriñ bi nee na lamma qalaa ba nga xamee ne buddina alxaakimu gouverneur boobu al idaana bantiya axasa jël na baadu chaamitina lenn ci way ndokk ña min ha ci ñoom uudan ab bant wa zahaba mu dem bihi ak moom ila mirxaadihi jëm ci aw wanagam ay na mu bayti tisaalihi néegub ab sangukaayam wa najaasatihi ak sobeem fa sa mu daal di ko fay samp Cheikh Amadou nee na sëriñ bi ci bopp mooy nettali nee na bi nga xamee ne waa ji sempi na bant yi sànni ñenn ci ña fa nekkoon nga xam ne lim def neex na leen da ci am koo xam ne da cee jël benn bant daal dem yóbbu ko ci wanagam daal di ko fay samp nga xam ne ngir ngir ndokk ma rek dégg nga ak ngir yéene ma li ma daal rek moom moom la ci jublu dégg nga ak reetaan ma ndax buñ ne lii kat jaamuwaayu yàlla la woon maanaam barab la bu ñu doon jaamoo nga jël ca dara yóbbu ko ci wanag mu nekk néewu sobe ku ne xam ne ne loolu dégg nga ak ñaawal la ak ndokk falam ma yàl fala falam yàl ba saxut nag an boo xamee ne daxala tàbbi na zalikal bayt ca booba la nekk waxtaaja tamu aajo woo ilaa maa in jëm ci ndox fa axasa mu daal di jël alatan ak jumtuwaay fiiha boo xam nekk na ci maa un am ndox shadidul xaraarati muy aji tar aw tàngaay walam yaalam taxamu ko wala yu jarrib fu te nattuwu ko itam biyadihi ak loxoom ba li fi nekk rek sabbaxoo sotti na ko ala odwihi ca cërëm ba fa nafara mu dal di foñ nafarata zalimi kem foñuk baabu góor almurawai ba di bun tiital wa saaxa mu daal di yuuxu mil afamihi lu fees gimiñam daal ne yaa cheikh yow bi adrik ñi xettali ma faqad halaktu alkuna warama mu daal di sànni bi tasti ca satalaga baidan mbir mu ñu aji sori wa jaa ani tamu nekk na ci loxoom wa yaduhu talaxoom fii sirwaalihi nekk na ci tubayam fa qultu ma ne ko fahal xaw ma ci lu sabru lu dul muñ fahal déet illaa sabrun ndare muñ wa xawlu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ak wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nee na bi nga xamee ne def na loolu moom waa ji diir bu gàtt lañ ci teg mu aajowoo wanag woowu daal di jóg jëm ca soxla woo ndox romb benn jumtukaay bu def ndox dégg nga te seetut ba xam ndox mi ci nekk nu mel fekk ndox mu tàng jër moo ci nekk dégg nga jéemut a xool ba xam ndox mi ci nekk nu mel naka la àgg ba faj aajoom ba noppi dal di koy sotti ci ab ciram dégg nga daal di yuuxu ba fa baatam yem daal di daw mel na baabu góor boobu ñu tiital nee na daal di ñëw ci man naan ma sëriñ bi xett li ma sëriñ bi xett li ma alkunaan daal di sànni satala ga fu sori te fekk loxoom mi ngi ci biir tubayam ma ne ko ah man de xaw ma ci lu dul muñ ak wax inna lillahi wa inna ilayhi kon xam naa mbokk yi incha allah bind bi dañ ko yemale foofu rek ba beneen yoon ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.